donc ñu ñëwoon nag partagé ak moom euh, suñu cofeel ak suñu suñu kóllëre bi ñu am ak moom parce que nit la ku nga xamante ni donc comme ni mu ko waxee rek bi mu ñu fréquenté bi mu ñëwee yàggul lool mais aussi mel na ni membre fondateur comme ni mu ko waxee li ko ko may nag mooy peut-être xam-xam bi muy waxee yar yi ak teggin yi ak yi nga xamante ni daf koy def donc te sax du ci tàggoo mu nekk lu baax donc ci ay question ci ay jëf ci ay jëfandiku te donc loolu la ñu soxla ci nit nit mom bo demee bay émerger ci benn mbir rek wax deug yalla do joxe bopp pour jox ci lami te mom deful lolu donc nak ñuy contane bu baax aussi ci initiative bi mu tek parce que initiative bu am solo la parce que secteur de l'artisanat d'une manière générale rawatina couture li lañuy ñuy manqué ay événements dañ koy manqué bu baax défilé donc euh, euh, euh comment dirais-je euh, foire ainsi de suite dañ koy manqué bu baax baax baax te lolu moy dundal secteur ñaw mom moy taxat nit ñi amat engouement bi moy taxat nit ñi xamat donc ci liñ nek lan la donc ñu lay encourager bu baax di ñaan yalla inshallah mu am réussite totale te gëm nañ dinañ ko am donc parce que mbir la ba nga xamanteni ni wax dëgg fa yalla ñu ngi koy suivre depuis lors mais am na wara am yépp am nek na en actualité donc ñu lay ci euh, encourager aussi bu baax di feddali aussi suñu kóllëre te suñu sañon dañ ci nek ak yow toute la journée waye jamono ji gis ngeen nim mu nim xaté donc waye ñi ngi ñëw aussi Euh, ak euh, turu ASB bi yëpp di la wax ni on est vraiment content et fier de toi donc frère. waa ASB mi ngi base wu Pikine Pikine euh, Pikine daal d'une manière générale fa lañ ko sosee waa Pikine tali bu bees tali bu mag ci dig-digal yooyu waaye nag jéggi na loolu parce que déjà tey jii am nañu membre bu nga xam ne kon Baye Pro mi ngi fi Azur caaro yi bii nii membre yaa ngi fa géej waay un peu partout Kër Massar ainsi de suite ba Kaolack am na donc bi mu juddoo nag. Yagul, presque un an et quelques, la ñu subi ko Covid bi mais wax dëgg fa yàlla bon machallah L'association a waaw association bi nag def membres yi membres 150 membres lañ nekk ñun ñëpp. waaw ñu ngi def ay activités puisque nag comme ni ni euh, association donc association peut-être euh, am yu nga xam comme social parce que dafa am but but bi nak peut-être ñu bari comprendre parce que du utukaayu xaliss maanaam day fédéré day dajale ay nit joo xam te ni ñu bokk fi ñu jëm donc ñu war a am droit à l'information war a xam ni ñoom ay ay ay ay artisan lañ war nañu am ay formation war nañu def ay renforcement de capacité war nañu comment dirais-je war nañu formel yooyu yëpp donc daf ci nekk après nag peut-être activités yi donc bon mu ngi fi puisque tey jii déjà am na yu fi jot a jaar ci yoo xam te ni ay liggéey la yoo xam ne ASB bénéficié wu na liggéeyu état ba blouse yi ci mujj nii xam nga formation yeeg ak yeneen ak yeneen. donc aussi tamit ñuy dëgmal benn bis bu nga xamante ni tamit bis la boo xamante ni parce que suñu récépissé aussi lañ bëgg a euh, euh, donc xam naa dañ siy jëm défilé lay nekk ak dîner de gala ñu ngi koy defee Carrefour des Stars. voilà donc mu nekk benn bis bu nga xam te tamit bis bu sacré la su ñun parce que dañ ci war a lancer waale aussi association bi. voilà donc loolu tamit activité la bu nga xam ñu ngi ciy jëm ni bientôt. situation bi nak amul danseur ay ay ay tailleur rek ci nekk mais ñi ci nekk ñep c'est des chefs d'atelier. waaw ay c'est des ay ñun ñep ay entreprise lañ yor parce que dañuy former ay nit ay bon amna nak ci biir ay formateurs ñoo xam donc ay nit la ñoo dañu mën nañu former nit ci euh, théorie ak pratique ba mu nekk ci ben niveau ni mais dal ñep ñi ko seq ñep ay tailleur lañ amul danseur amul art amul yoy mm-hmm deug la wa xam nga jafé jafé mom association donc bari na du ñun rek association yi seen jafé jafé donc nekk na problème moyenne moyen puisque dafa am yu nga xamante ci moyen la muñ ko mëna def puisque aussi association yi dañuy bëgg yor école bo xamné dañuy former waxuma sax non seulement ñi nekk ci association bi parce que déjà euh, da ngay gis tailleur yi du combler manam damay mën li télé li qui tëlelee ki mën qui le télé, ñu télé ñun dañ koy am ñun ñëpp dañ am des qui broderie donc mën nañ ko qui mu nekk ay Donc, nga xam qui la renforcement de capacité donc nag état bi euh, les dinañ bénéficier wu formation bénéficier wu ci ay yu mais donc fonds la association yi là parce que l'association, elle bëgg être école donc mu émerger xam nga mu uti loo hamtin ni outil bo xamanteni soit mercerie day am revenu kessam am dara ba nga xamanteni donc leg leg nga gis nek nit nek si jafe-jafe soit mu yàqule wala mu feebar wala mu démé nonou donc kooku da ngay mëna jël ci li nga am dimbaliko parce que loolu lañu wara andé association bit bi euh, fofu lañ koy gëna sax sentu mais dañuy am euh, yoy mais nak bon yalla baax na daal parce que aso man déjà duma duma sax ci état man jamono bima tombel ci association puisque état bi nga na président bi dafa booster secteur bi lolou ku ku farak ku faru dafa éveiller séance euh, artisan yi xam leen ne du du dem rek uti dépense dem tëdd sa kër artisan bi da nga war a formel da nga war a am ay formation da nga war a am nii da nga war a am ay subvention donc mu ubbeeku ba léegi sax bon li nelawoon ci secteur bi yëpp yeewu na moo tax coow li bari détaillé ak affaire yooyu mais côté boobu moom président bi boosté donc franchement aussi ñun tamit comme dañuy soog a juddu na jafé jafé yi du ñak waaw mais association bi moom jafewu la bokk. waaw jafé wala bokk parce que euh, ku ci dugg rek donc carte de membre moo la ci duggal kessé ak peut-être euh, sa donnée peut-être photocopie carte d'identité ñu am sa filiation yooyu. lolu kese la après bo duggee peut-être euh, di nga am ay notion ni muy doxé ak li ñuy bañ parce que tamit bon peut-être am na yu muy ak yu muy donc yooyu yëpp nit ki bu demee ba kii peut-être dañ ko ci dimbali mu xam ko waaw waaw xanaa di gërëm rek euh, di gërëm ñu ñi ñu àndal tey jii fii di gërëm aussi tamit association bi ñu nekk aussi tamit di euh, di gën a euh, santaat Baye Pro bu baax ci lii parce que yii dafa baax puisque yii ay Dakar nga ko doon gis léegi sax Dakar xaw na fa tumuraanke tuuti télé ñoo koy jël accaparé ko di ko def donc di ko def ay mode tabaski mode korité te yooyu ñoom waruñu ko def loolu ñun ñoo ko war a def parce que suñu yëf la mais peut-être léeg comme li ñuy wax moyen bi ak ñàkk a bi yu bari donc ñi ngi sant ñeen ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni Baye Pro aussi ñu ngi lay ñaanal ci bis bi di sant Soukeye Touré euh, papa le secrétaire Modou ak ñëpp rek di wax ni yàlla na yàlla def réussite totale ci biir bi asalaamaaleykum wa rahmatullah